est-ce que pétrole bi ngay am léegi di ko mën a dugal mu wàññi sa coût électricité. mu bëree ay laaj yi nga xam ne nii njiital Legs Africa mu ngi ciy xaar nguur gi ngir mu indi ci ay tontu gannaaw bu ñu tànqee bari lu pétrole bu njëkk muy woo njiit yi ngir ñu joxe xibaar bu wér ci li mu baril bi ñu mën a am bés bu ne. parce que euh, bu ñu ko defee euh, contrat bi dafay wax bu fekkee ne ma àggul cinquante mille am na lu état di am mais du lu bari trop. Hmm? Euh, bi gën di bëri euh, quinze pour cent lay doon wala 20 pour cent bu ba dépassé 100 000 baril et cetera day gën di yokku. mu leen di woo it ngir ñu fësal anam gi nga xam ne ni moom la Sénégal bëgg jaar ngir amal production nationale am. naka la koy gérer est-ce que day yow da koy booleeg production globale bi ñu dem rafi ne ko Europe wala feneen comme ni ko directrice su Woodside waxee. wala ñun dañ koy jël raffinel ko suñu bopp SAR wala Nigéria wala xawma parce que SAR aussi il faut ñu xool est-ce que SAR gouvernement bi waajal na ko pour mu mën a raffiner li nga xam ne moo fi nekk. Ah, ba ñu sukkandikoo ci Iliman Kane ngir mën a jaarale mbir mi yoon faaw ñu boole ci bépp ma réew. bu ko defee xëy na dinañ am yaakaar ne. li nga xam ne ne mooy intérêt askan wi dina am ñu ko leen fa toogal di ko saytu en plus que yéene président boobu bi nga xam ne ne moom la am donc loolu lañ ko lañ ko ñaan. gannaaw baril bi nga xam ne ni moom la wut say énergie génne Sénégal door production moom ci wàllum pétrole loolee ñu koy amal fukki at gannaaw bi nga xam ne nii gis nañu pétrole bi ci atum 2014 te bu ñu sukkandikoo ci njiital Legs Africa mii di Eliman Kane bu ñu bëggee amal ab production bu mucc ayib gaaw rek lépp jaar ci yoon.